Moy à un mois du début de la campagne électorale je n'ai pas le cœur à ne de détailler di problèmes sectoriels parce que nag de étape cruciale pour nous faire Sénégal partout pour dans un mois parce que jamono joju la fajé problème yi jamono joju nga kenn la kenn ku nek ñun am reprendre sañ-sañam yor carte électeuram wara mëna dem set digënté nangami candidat yu taxaw mu seet kan moko ci wara doy bu boba nak bu comme niko ko wax kenn waxé légui nit ñi rir nañu top ci Macky Sall ak ñaawteef yim fi def yépp ci juroom benn at yi ak la les crimes économiques les atteintes aux libertés les atteintes contre la démocratie le piétinement de nos institutions la gouvernance clanique et familiale les détournements de deniers publics l'enrichissement sans cause de ses proches soudé malgré tout ça sénégalais ñun Macky Sall bu nous ñun ñëpp dinañu xam à quoi s'en tenir waaye balaa ñuy egg fofu. il faut que li tax j'ai pas cœur à le cœur à ça parce que j'ai je suis meurtri je suis meurtri parce que Sénégal ñun ñëpp a ngi toog di seetaan Macky Sall muy def li muy def diko def ni mu ko neexee nit ñi ni la chose va se jouer le jour du scrutin Lolo, erreur le ñepp dëppoo nañ ni élection sàcc ko ci biiru juuru élection légui jafe na xanaa opposition ñak organisation bob teewuñu ci bureau de vote yépp mais pour téwé ci bureau de vote y am des mandataires fiables des représentants fiables dans les bureaux de vote ñu ñew tok fo 8 heures biñuy ubi bureau de vote yi ba signé les PV kenn ku ne yor sa PV envoyé ko sa QG ñu centraliser ko su dee loolu def nañ ko kenn mënul sàccee élection noona waaye élection li koy sàcc ci ci njëlbeen bala mooy fii ñu toll ni Macky Sall fii ñu toll nii lay sàcc élection yi te sénégalais koy seetaan moo wax leen ni am naa li ma naqari man parce que dañoo seetaan Macky Sall muy def li ko neex ak ni mu ko neexee parce que li ñuy demander politiques politiques au Sénégal Sénégal soxlaatuñu ay acteur politique acteurs politiques. wax nag du yéen ñiy toog yéen tax ma wax ko c'est les vrais patriotes yéen xam ngeen gëm ngeen waaye meeting c'est des tribunes pour s'adresser à l'ensemble des Sénégalais presse ni taxaw nit ñaa ngi def ay live direct moo tax bu len japp ni spécifiquement yen ñi tok yéen a tax may wax gëm ni ñi fi tok ñepp am ngeen yeg bi vous êtes totalement prêt xam ngeen ce qu'il faut faire waye damay adresser adresser globalement aux Sénégalais parce que les les li ñuy laaj l'homme politique sénégalais xam nga lu ñu wara xaar d'un homme politique moy d'abord na na doon ko xamné ne am na bi ci réew mi moy un vrai patriote quelqu'un qui a intérêt général ak intérêt Sénégal ab ñor na ko ba mu ba mu jaral ko mu sacrifier jël tam, jël alalam jël xam-xamam jël lépp waroon mun a def ni ñëpp dem tëju ne ngi dem uti alal wala amon na alal ba pare munoon ne toog naa sama bamba masena li ci dess sama yoon newu ci koku bàyyi lol lépp ne Sénégal ma ñor ba may muye mayo lolou moy premier critère bu ñu waroon apprécier ci homme politique deuxième critère bi est-ce que xam-xam bi soxla pour nit nous yor est-ce que gis-gis bi mu laaj te war ci vision war de traduire par un programme est-ce que lolu mi ci waji waxuma ciowal expérience yi de waxu ñak wax waxuma lolu ñi nga bi Macron di prêter serment dégg Ousmane Tanor Dieng dafa doon mbëkkante pour bok ci avion bi mu demee da doon sukk ba pare di wax expérience ñooñu taxuñ ñu wax dama ne la xam-xam ak vision ak programme bi nit soxla biñu soxla ci ki wara a defar réew mi est-ce que mi ngi ci mom ñettel bi moy est-ce que ku jub la est-ce que loxoom set est-ce que kii bokk na ci ñoo xam suñ ko denké mu mu alalu réew mi L'idée, de la ñu homme politique mais Sénégal pour être homme politique le bëri ci askan wi loolu voilà ce que loolu sax duñ ko xool li leen yitteel mooy waa lan la andi lan la joxe lan la investir kan la may ak yu mel non waaye li gëna graw moy nit ñi japp nañ ni sax ni le combat pour la démocratie c'est les hommes politiques qui doivent mener ça le combat pour la démocratie est une affaire citoyenne n'est pas les hommes politiques Nous benn élément rek lañ ci dem na benn réunion bu ñu dajale woon pause bu maître Adama gey mu am ku ne daf ñu jaral suñu bakkan nañu dox vers le palais nangam ko defuma ko su li def ni doyul nit ñi yor ni ñëpp suñu sénégalais kër man sénégalais dem ray sama bop C'est un combat, c'est un combat citoyen, tous les Sénégalais. Pourquoi des milliers de gilets jaunes de France te amul ben parti politique bu parce que ñoo avons une sensibilité citoyenne pourquoi on pense que c'est Ousmane Sonko qui doit aller au ministère de l'intérieur yor Bazokam, Dor ay pour nous gagner carte d'identité yi bu boobaa citoyen yaa ngi toog parce que nag suñuy faut il faut nous waxante

juddoo ci réew mi màggee fi liggéey fi ba yàlla may ko c'est pas parce qu'il est plus méritant ay nit liggéey nañ lu ëpp moom peut-être amuñu amuñu chance boobu yàlla mooy yombalal yàlla may ko mu réussir tey waaye keroog bi mu amee sañ-sañam ne damay dugg ci politique te damay opposé wu ci la ne kii dinaa ko rendi est-ce que ñun war nañoo accepter loolu ñëpp toog di seetaan mu am le droit de vie et de mort sur qui il veut man midi di wax ak kérok bima né je suis opposant la ne ma amatuma amato sañ-sañu fonctionnaire au nom de quoi alors que Amadouba, Ba Ablaye Daouda Diallo keneen ak keneen Mamour Diallo tous les petits truands de la République yo xamné la même fonction